asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di siyaar suba ak àjjuma tey gi di dellu siwaat ak yéen ci dellukaay nit ki ci tolluwaayu jamonoom. suñ dellukaay tey nag mooy taxaw seetlu bu baax nit ñi niñ dawee jëm ci nguur ne nuñ ko amé rek baxna ak ñi ko ngànk ne ñu ko bàyyiti bu mukk ñom ñaar ñepp joom waftakir fi munta husnal lati anta tawahu tajitu amran jalal dañ ni boy dugg ci buntu bol xor rafetayu buntu bi rek waye xolal bo baax ëlëk fan ngay génne wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nasi alquran da ko nek da am ak ay go xamni mom ngay ayé wara figal nak jox kenen yow mi jité te présenter programme bo xamni ci lañ la fale respecté ko doxal ko wu mucc ayib ba ëllëg bu ñuy lim histoire réew mi say jaloore man faa sax yow mi nga xam ne yaay wut bàyyil xel ni nit ki dañ koy xamee ci waxam di ko jàpp ci jëfam nit ki nag ay waxam ak i jëfam bu ju yotloo tur wa rek a fa des dara desatu fa alxuraan dañu dama bind nit ñi ci melokaan yu gën a rafet waaye nit mën naa sàggan ba delloo boppam ba yées sax bàyyi ma moo tax boroom xam-xam bi ne jamono bii ma toll jàppe bàyyi ma yi rabi àll xarit moo ma gënal may jàppe samay doomi ndey ay xarit ndax bàyyi ma yi xamal la sa secret du tax ñu weer la nga tooñ leen tamit du tax ñu bala alal mi nga xam ne moom la ñëpp jiital ni moo man lépp an lay sa yox nii xan fil madayiqi illa idha farra firarul labixi dani alal moy li gëna ñak ko kóllëre bo nekké ci xat-xat li fi yëg mi ngi ci yow du la mën jariñ dara lu daf bu la woné ginnaw la lay jariñ kon ku koy dajale yaangi dajalé dajale sa musiba képp ko xamni da nga jité wala nga yut ñu bari nekk sa ginnaw xalaatal bu baax ni bo joomé rek di nga juumloo ñu bari da ngay gis kuy waat di wax ni diw nangama diw nangama kooko jek jek nen koko lu may wax motax diine rek mo jara jàpp diine rek mo jara wéeru fastakha fa xaw mo fa atahu dañ ne ragal lo saw nit xop saw nit bañ top la bég lo leen xémem lo leen bañ bëgg la moko gën wasalaamu aleykum Zalul